waxtu am salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu Haj Babacar delloo naa la nuyoo bi ak ziyaara bi. jaajëf oustaz aywa ci yóbbalu bés bi. waaw Haj Babacar xam nga démb dama waxoon ma ni. dafa am ñett yoo xam ne yonent bi daf nu ko baaxee mu jóge ci boroomam. mu nuy dindil suñu njàqare yeeg suñu jaaxle jaaxle yeeg suñu lépp loo xamante ni bii bëgguñu ko ci suñu dund. ma waxoon ci démb laa hawla wala quwwata illa billah ci cent vingt 324 yi ak ni ñu ko war a séddalee ci ku ko mënul tegale ni mu koy mën a defee ci ñetti fan yi ci ñetti yoon yi ci bëccëg bi Hadj Babacar mhm. tey dañuy wax ci laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin Hadj Babacar nit lu mu nekk lu mu compliqué compliqué lu mu jaxasoo jaxasoo lu mu lëj lëj lu mu jafe-jafe-jafe mu jàpp ci baat yi gëm ko xaj Babacar sunu boroom fekk ko foofa génne ko ci situation yi mu nekk yàlla moo ko joxoon yonti yàlla yunus sànni ko ko ci xolam yonti yàlla yunus nekk ci ay jafe-jafe yu métte métti ñiy déglu histoire yusuf yunus xam nañ ko mais ba mu ko saxoo di ko def ci la ko yàlla génne ci jafe-jafe yooyu kon ku nekk ci jafe-jafe ak lu mën a doon hmm. jàppal ci laa ilaha illa anta subhanaka ini kuntu min adh-dhalimin hmm. nga di ko def yàlla génne la ci loolu nga nekk Hadj Babacar jërëjëf Oustaz Mor